original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp mbokk yi jërë ngeen jëf Baye Fall baa ngi siyaare Badou Mbaye bu jeexee jana aca mbokk yi seetaan Baol TV et Baol TV rek la e, fii la information yi di leeree fii la information yi di wéree ak kon nag yéen ñi nga xam yéen taamu seen seen bi di Baol TV nag taamu ngeen fa baax Baol TV information yu wér information yu gaaw information yu wóor la lay jox waaye mbokk yi nag tey nag di bésub ajuma yem mbokk le 20 septembre waaye nag ñu ngi fi nga xam ne ni moom mooy ci ndakaaru waaye nag information bi ñu koy tàmbale nag du du lamb ki ñu koy tàmbale nag di xale boo xam ne nii eh, mu ngi nekk ci écurie Fass Benno ñu gun koo xam ci Ada Fass Ada nag eh, ci weekend bi ñu wees nag police daf ko tegoon loxo eh, muy police bu naa nag ginnaaw ba mu amee ay xëccu xëccu moo ko yéen ci xale yi ñu jàppoon ko ca garab yi waaye nag information bi ñu leen jox nag muy Ada Fass nañ ko Ada Fass police libéré na ko information bi ñu leen mën a jox daal mu ngi noonu di dem këram Ada bàyyi nañ ko Ada Fass libéré nañ ko gannaaw coow li mbokk yi li nga xam ni nag eh, gën a fes ci coow li nag mooy Ada gis nañ ko ci waaye gis nañ ci ku ci mel ni Pokola Balde di jarbaat ci Ama Balde ndax ñoom ñaar ñoo àndoon eh, ak ay xale yu jigéen ñu nekkoon ci li nga xam ni nag moom mooy benn soirée soirée bi nag fa la coow li tàmbalee. am ndax coow li nag coolu règlement de compte la woon e, vidéo yi nga xam ne nii ñun ñëpp gis nañ ko Ada Fass e, foofu la njëkk a jàmpante ak xale yi loolu nag moo indi coow li nag indi règlement de compte ba ñu dajawaat ak xale yi nag e, moo waral coow li ci am ba téye bi xam ne moom lañ téye woon Ada Fass am ci ndax Ada Fass ci information yi ñu mooy dafa jam kenn ci xale yi waaye jam bi nag tax koo demee noonu loolu nag moo waroon police Médina téye ko garde à vue yi waaye information yi am nag mooy ko bàyyi nañ ko libéré nañ ko aada mu ngi leen dem këram. waaye mbokk yi nag loolu moom moo gën a fes eh, libéré bi nga xam ne libéré nañ ko Ada Fass tey ñu àndoon ci ak yéen yéen ñi nga xam yéen a safoo Baol TV eh, yéen ñi nga xam yéen ay tiitaroo li nga xam moom mooy Baol TV information yu wér information yu gaaw waaye frère eh, tey boo nekkoon mag ci ki nga xam ne moom mooy Ada Fass wala nga nekk rakk ci Ada Fass wala nga nekk mbokk ci Ada Fass yan conseil nga koy digal lan la Ada war a def lan la Pokola Baldé war a def ate Baye Fall baa ngi saare bu jeexee jeex na Baol TV rek la amul feneen abonné leen ñu nag yéen guerre bi du ma a jeex waaye mbokk yi nag loolu moom moo gën a fees libéré bi nga xam ne biir nañ ko Ada tey ñu àndoon ci ak yéen yéen ñi nga xam yéen a safoo Baol TV yéen ñi nga xam yéen ay tiitaroo li nga xam moom mooy Baol TV information yu wér information yu gaaw waaye frère tey boo nekkoon mag ci ki nga xam ne moom mooy Ada Eh, wala nga nekk rakk ci Ada Fass wala nga nekk mbokk ci Ada Fass eh, yéen conseil nga koy digal eh, lan la Ada war a def lan la Pokola Baldé war a def ate bay Fall baa ngi saare bu jeexee jeex na Baol TV rek la amul feneen abonné leen ñu nag yéen guerre bi du mës a jeex waaw mi ngi noonu ah champion baa ngi noonu gars yi ah Ada Fass mbër. waaw yow champion la ñu lay ñaan xalaat ak taxawaay nga def waaw mi ngi noonu ah champion baa ngi noonu gars yi ah Ada Fass mbër. waaw yow champion la ñu lay ñaan xalaat ak taxawaay nga def